RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés nous, notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jëf nous, ñu ngi nuyu ñëpp di leen di leen sant di ak ndax guddi na ba sax waaye ah, lu baax du doy xam naa waxtaan na wax lu fees loo si dolli mu tuur waaye ah toog nañu ba pare nañu wax rek yàqul dara bëggoon naa sax wax ndax Serigne Cheikh li nga fi wax daf ma ñor trop waaye nañ bàyyi ba beneen rek ba léegi bu baax man ci baatu iqra bi laa ñëw ak ni ko yàlla waxe ci alxuraan ak ni ko nit ñi déggee ndax dama seetlu ñu bëri dañ koy ja dañ koy fiire jàngal waaye koo xam ni xam-xam si yow lañ ko génnee ba nga nekk temps sax fekkewu ko kon nan lañ la mën a jàngalee ka nga xam ni mu ëpp jibril téeméeri fukki junni yoon te chiffre boobu sax ndaw na nan la jibril mën na ñëwee sa kanam di la joxe ordre moo tax sëñ Cheikh ne boobu firiwul jàngal mu ngi firi sosal daara waaye foofu damay wax ni du affirmation cax la ndax kuy sos daara day fekk nga xam dara te kuy xam dara day fekk nga jàng kon foofu na day fekk nga jàng te moom fekk eh, xam-xam ci moom la ko génnee kon foofu du jàngal te sosal te du mën a nekk gum sosal daara ndax sinon manque am na fa kon fàttali ko lay firi ni mu demee mooy xolam ordinateur la informaticien xam nañ fichier R fichier R dañ koy compressé mën nañ ci def mot de boobu mot de bi fi ñu koy bind javascript lay demee variable bi iqra la phrase bi mat na ma ne phrase bi mat na ndax fi mu toll nii phrase bi mooy fàttalikul li nga jàng ndax xam-xam si yow la génnee ndax nga moo sos daara jàngal jaamu yàlla yi Ya. Gaya benar akhirnya. Tapi masih dah kalian lah. Mau ikhra yang dua wasir itu bi. Mau ikhra mau nyom alif lam mim ben lain. Eh pas pas tu lain. Nah nit li tax alxuraan am complexité kenn mënu si changer virgule c'est parce que balaa ngaa changer virgule si alxuraan changer nit nit nit ñi si nekk yëpp ndax alxuraan message la te kii bind lettre sa kër nga xam ni benn lettre rek nga fi mais waa kër gi yëpp ngay waxal kon du ñëpp moom lépp si alxuraan ku nekk ak aay yi nga moom kon balaa ngaa changer alxuraan di nga changer ñi ko moom ba pare iqra kon bu boobaa iqra comme passe partout la ñëpp ko moom kon ci ku nekk am sens bu mu war a am ñu jóge si yonent bi jaar si ñeenti xalifa yu topp si moom ak épreuve bu ñu waroon euh, euh, affronté ndax ka ñu wuutu yombu la doon te mu yonent bi sallallahu alayhi wa seen iqra du jàngal du fàttalikul bien vrai que bi si ñëpp la war ndax ñëpp ndax ñëpp fekkee woon yàlla alastu bi rabbikum ñëpp a fekkee woon yàlla ñëpp war a fàttaliku d'accord waaye ñoom seen cas mooy taxaw leen rek ndax seen épreuve ngand na da ngeen di téye affaire yi ndax ñi ngi ñi leen di wutu ñi ngi ñëw jóge si ñeenti yi dem ci sawaaji Hmm? waaw ah, suñu waaj la ni mu nekkee l'autre chose sax kenn xamu si dara ni ma koy wax bi passé naan maan ba ñuy gént ñu lay wax ni moom ñu nekk fële xam ñu nekk fii xamuñ ko <laughs> léegi si moom yëpp sax est-ce moom xam na ko <laughs> nekk si si xam nga suñu Cheikh da ngay faral di wax ne yaramam daa tàng ma lay wax ne déedéet yaramam daa sedd ndax ku yaramam tàng du tàll def liggéeyam de tàll ut nu seddalee boppam ndax mën a def liggéeyam yaramam ma sedd guy ndax gëm yàlla ak mat la mu doon gis nga ne buñ commencé ci Cheikh di wàcc foofu iqra nekkatul mo bo xam signification bi dañoo signification buñu ñu buñu wax ni ko sëriñ expliqué ci gàmmu ren bi néna na ñaari ñaari genre définition la mëna am benn bi définition définition écrite wala buñu mëna expliquer a expliqué définition bo xam dañ koy yé ñom nak ci cheikh le la la iqraar commencé amee sens su yëg-yëg seex mooy koo expliquer ko sax c'est impossible wax dëgg neex yàlla waaye <laughs> la mu yor ca xam-xam yor ko ca wilaaya illa waaye su nekkee man sax <laughs> nañ am foofu rek moo gën ñekk <laughs> ci sama xarit nag Cheikh El Hadj moom it moo nga noonu rek jaaxal na ñëpp waaye li ma daaxal ci moom mooy da xool fa mu jaar te balaa ngeen di xam ni waa ji garaaw na nga xam ni moom moo fi indi Cheikh El Hadj Omar moo ko jëlee fa mu nekkoon boobu àdduna sax kenn bind ko moo ko jëlee fa nekkoon bàkk ko ba mu ñëw te dañ bindoon contrat signature ba mooy rawxaanam ba bu yore arme de terre moo tax bañ ko rey mu ne tooñ nañ ma xool leen loolu koo xam ne au début sax bugg si woon lu bëri waaye xool leen ni mu si taxawee à la fin kon loolu rek waaye yàlla baax na jëm ci Cheikh El Hadji <laughs> kooku nag wax dëgg neex yàlla moomi beneen affaire la ndax koo xam ni da liggéey la nga liggéey ba pare mu wóor la ne même buñ la doon fexe kenn lu mënal dara da nga dem ba sa kanamu borom nekk bugguma ñu xam ma daa xam ni liggéeyam jeexagul daa xam ni liggéeyam jeexagul rek ndax boobu léegi mooy feeg ñun toog mu muy ñoom di ñeneen mag ñëpp ñoo ngi fekk ñun toog moo tax yenn saa yi daf may jaaxal bu ñuy toog ci université bi ñu naan Serigne Moustapha nekk fi ci boote waaye moom fi ci zaahir déedéet ndax ñu ñëpp ci moom lañ bokk di te ñu fi toogee toog na fi wala ah loolu laa jàpp daal xaw ma nag Cheikh El Hadj Malick waaw ah ñoo ci góor ga nag Ababacar fan yee passé suñu Cheikh yaa ngi may wax ni Cheikh El Hadj dafa waxoon ni nitu yàlla moom ci boppam dafa dafa incarné trois cent treize bureaux moo tontu leen ni la xëy Moustapha mi ñu yore yow si trois cent treize trois cent soixante la yore waaye mën na la góor gee nag moo raw ñëpp ndax waxuma la bureau sax waaye gis nga boo observé woon organisation bi ñu organisé àdduna bi waxuma la ni ñu organisé àdduna bi ak yeneen plan yi ci biir galaxie yi waxuma la ñu organisé galaxie yi ci biir univers bi waxuma la ni ñu organisé univers bi ci biir multivers yi waaye entité ba superviser multivers yi noonu lañ noonu lañ organiser yaramam moom te bokk la ñuy organiser ruham waye bala ngeen xam ni ngeen de deug la ngeen xam ni baka yalla di wacce ci kaw suuf ben ci mayam yi ñu yoron bala moo ñu indaale ko ba mu il est reparti de zéro ñu la ñu ñëpp moo nit tok ni man nit dong laa du ma xam yenn yi loolu daf may révolté loolu daf may révolté ndax xool leen góor gi ak léegi fi mu toog te mooy kon ni di dem évolution foog mu am ndax ku taxawul da nga dellu ginnaaw noonu lay demee ah yaa gàcc ci Cheikh al maktum ah nëbbuwul de. Hmm? nëbbuwul de. Hmm? nëbbuwul de. moo si ñun toog. Hmm. ah xanaa ku am ku yëg yëg ku amul yëg-yëg bu àgg fenn fi xanaa. mun naa comprendre ne doo ko gis. waaye fees na fi de. dëgg neex yàlla. sëñ Cheikh. fan yii passé xaw ma démb la xaw ma barki démb yaa ngi may wax ni Serigne Babacar rawaxaanam jaan la jaan bu weex la symbole nga ne ma Serigne Cheikh bosam génn la tontu ma la sax ndax euh, Serigne Cheikh bu fekkoon rawaxaan euh, symbole mooy doon gaynde kon am na lu des ci moom kay lay sukkandiku pour bind gaynde ndax courage bu toll noonu yitte bu toll noonu vision bu toll noonu ak bu toll noonu koo gis ci gaynde ah man de gisuma ko gisuma ko wax dëgg liggéey na de waaye nag xam nga kan a liggéey Moustapha duma leen sax wala li mu fi liggéey xool leen seen bopp rek ndax boobu ba léegi mu nekk fii di def li muy def si yéen kon ba léegi xamoo leen ko ko am lu des ko am lu des bu baax sax waaye ah yàlla baax na ba léegi ñooy dem de ba léegi waaw ndax liggéey bu àggugul mm-hmm. macha allah rek ngay mën a wax ndax bañ koo car kon nag macha allah macha allah. <laughs> gis ngeen balaa ngeen xam ne ngeen xool yonent ko ennemi ya ma amoon bu benn boole ko ñeenti xalifa yi ennemi yi amoon ñaar nga xool cheikh ennemi ya amoon ñu toppee ko noonu ba si Serigne Cheikh mii nga xool mu boole ñu ennemi yooyu yëpp bis ennemi boppam te mu wóor la àgguñ ko fii boo neexoon faxas leen te du ko def ndax ëpp na ko ëpp xam ngeen tam bi iqraar damaa xamoon ba xam ba léegi iqraar mu doon wax si yëg-yëg ba xam yéen koy yëg nii seen iqra ñoom ba xam yéen a koy yëg ndax ñoo xam ne du ma sax wala xam nga daal li wax ci symposium bi bañ koy préparé ci biographie Serigne Cheikh ñuy hésité ba xam date naissance bi le vingt neuf la wala le trente un moo tontu leen ni leen ñaari benn baax si te buñ ci bàyyi gaañu ndax am na ñoo xam ni waxuma la sax seen chiffre de naissance waaye gis nga date de naissance lu grave la ndax am na ñoo xam ni fas fa la yàlla def seen dund yëpp ni moo la demee pour wax la li tax ñaari date de naissance am am c'est parce que code la ku jël benn bi bàyyi bi si des doo si génn doo xam li fi def dëgg-dëgg boo génnee ko décoder ba génnee chiffre d'innocence bi set lay doon te set mooy chiffre boo xam ni daanaka mooy alxuraanu chiffre yi ñaari côté yëpp million doom ak leer ñëpp reconnaître grandeur am moo tax fu ko neex dugg te boo seetloo set ñëpp ay lañu yore gis nga Serigne Cheikh li nga wax sànq ci xam fan laa koy la ma la waxoon ci date ci date de sens Serigne Babacar. Hmm. set easy. allah akbar dëgg la dëgg déet nañ bàyyi noonu ba beneen waaye mu toog noonu rek moo ah. beneen rek hmm? incha allah beneen yoon ah. RTV Dakar yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bu leen fàtte bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jaa ngeen